asalaamaaleykum mbokk waa Sénégal yéen ñi nga xam ne yéen ñu seetaan si biir ak si bitim réew yëpp euh, ñu ñëw rek di def vraiment gëj ngeen ñu dégg tuuti nag gëj ñu dégg parce que boobu léegi nag ñoo ngi bàyyi euh, di seetaan di xool nu yëf di mujjee mooy euh, li nga xam ne nii moom la gore Sénégal yëpp républicain yi objectif yëpp doon xeex muy def ba nga xam ne nii Sénégal dañam élection présidentielle yu objectif doomu sénégalais yi bëgg bokk yëpp bokk ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo ngi suivre IK News nag ñun bañ jëlee suñu responsabilité yàgg na muy di xeex li nga xam ne nii pour ñun góor bu ne danga ko waroon da ci si waroon def teg sa bakkan mooy benn régime wala benn nit ñëw di tànnal Sénégal kan mooy nekk ëllëg seen njiit sénégalais yi ñëpp xam nañ ne Euh, euh, Ousmane Sonko rek taxu ñuy wax mais euh, moom la si ay yëfam gën a fees mooy dès le début président Macky Sall ak régime ak quelques personnes de son régime wala ñoo xam ne nii daal vraiment jël nañ institution Sénégal yëpp def ko seen yëfu bopp ne ak bu àdduna doon tukki tamit Ousmane Sonko du bokk loolu ba ko sénégalais yu bëri di xeex di bañ loolu yàgg na. am na sénégalais yoo xam ne ni tey eh, seen ay weer a ngi ni ñu ngi fanaan kaso ñu xaañ leen seen liberté ndax lu xeex boobu am yeneen sénégalais yoo xam ne ni sax ñàkk nañ seen bakkan eh, terewul nag li ma daa wax bi si rek ma koy baamtu mooy ne gor dana am loo xam ne dana ko bëgg mu xool ne lii ñaaw na su ma ko defee nit ñi danañ ko gis wala dana am lu ma si bañ sama der dana si yàqu mais yàgg naa wa leen di wax ne man sama xalaatu bopp ah te xam naa ne sénégalais yëpp yu bëri di wax te yàlla tax ñuy wax nekk ay vrai républicain encore une fois te ma baamtuwaat ko aussi nag souvent su may jël kàddu di wax man dafa am tibb sénégalais yoo xam ne ñoo tax may wax waaw góor yi ak ñi nga xam ne nii vraiment ce sont des yoo xam ne nii defuñ wala amuñ seen position duñ ko teg rek si seen intérêt bopp duñ ko teg si intérêt de tout de tous les sénégalais de la nation sénégalaise ñooñu moo tax may wax. mais waxuma ñi nga xam ne ni tey yor nañ poste yoo xam ne ni wala leneen ak leneen moo tax ba amatuñu ngoru wax dëgg te yàlla tax waaw man damay wax souvent ne dara fu mu ñaawee lu mu ñaaw lu mu am am fu mu ñaawee foofu la Macky di jaar amu lu mu si gêné wu parce que bu ngeen gisee tey procès Mbaye Ndiagne bi contre diffamation bi nga xam ne moom rek lañ amoon si recours wala si si si en main pour éliminer Ousmane Sonko bu ngeen gisee. niñ ko gaawantoo dóoraat ko 4 janvier pour jéem a condamner Ousmane Sonko pour ba ne du bokk am luñ bëggoon te amuñ sax benn gêne fu Sénégalais yëpp war a xamee ne rek Macky Sall du républicain wala du koo xam ne nii vraiment euh, du républicain gisu leen benn loi wala benn text boo xam ne ni dafa ne Sénégal euh, euh, lu tax may wax loolu mooy dañoo gis Modou Niang bi nga xam ne dafa nekkoon PDS moo ñëw indi ay wax plateau télé lu leer nañ ne. Macky Sall ak Karim Wade Macky Sall dafa imposé woon dafa bind signé ak Karim Wade comme quoi Karim Wade dafa war a retiré wu de la vie politique wala Karim à l'époque si si problème ak Karim Wade bi mu won ne loolu bu dee dafa am muy muy dëgg Macky Sall moo jëlal boppam décision boobu def ko te amul benn décision de justice boo xam ne nii teg na ne ne nit wala loi war na président de la république am na sañ-sañu euh, ñëw. te nit fi ñu ko téye nekkoon par force da ngay bàyyi politique quoi tu te retires de la vie politique loolu képp kuy sénégalais euh, en tout cas yëgu ma ne président de la république am na boobu ci boobu cër wala na benn droit te cër wut Macky Sall ko Karim Wade ñu gis aussi encore une fois rek Ousmane Sonko dès le début loolu Macky Sall bëggoon def na lu ne def lu ne gis nañ ko sénégalais yi nelawuñ lu ne def nañ ko mais mooy wax encore une fois vraiment nit gor li ñaaw li ñu def Ousmane Sonko lépp sénégalais yëpp di si seen teg seen bët. loolu nit ku républicain ku ne vraiment yow war nga ko sax di ko def si dëpp démocratie Sénégal adduna bi yëpp di la seetaan di la gis mais yow amoo si benn gêne même booy làqar si dernier la justice wala booy dàqar si génne dernier conseil constitutionnel loolu lépp yu ñaaw yooyu yëpp sénégalais gis nañ ko fi terewul sénégalais yi manifesté wu nañ nekk ay démocrate à travers tout le monde à travers le monde entier laa bëgg a wax manifesté wu démocratiquement wan seen naqar si capitale européenne yëpp lu ne mu dajal mu jaraleen ko mais terewul Sall faaluwut suñu ndey laay wax faaluwut suñu maam li mu bëgg def da def donc encore une fois man euh, au moins même bu Macky Sall réussir li mu def les les vrais républicains yi xam da doon xeex même s'ils ont s'ils ont perdu ils ont perdu avec les honneurs mais nit bu gagné te gagné wut avec les honneurs amul sens parce que man booy gagné li may wax rek mooy mi ngi mel ne ñaari góor yooyu xeex kenn góor ki loolu dama koy wax souvent benn góor gi ñëw di màtte wala di gàjje si biir xeex bi xam nga loolu même boo gagné combat bi ñàkk jom wala yées weesul loolu. Euh, léegi nag ñu nekk fii nag euh, actualité bi mooy euh, ils vont repousser les élections dañ koy repousser duñ ko repousser ñii gis naa aussi encore une fois ah, ñuy def seen sondage de bidon yooyu naan soi-disant te ñëpp xam nañ li fi xew si législatives yi bàkkale bi leen sénégalais yi def toroxal leen toroxal yu ñaaw malgré les moyens de l'état yu ñu utiliser sur tous les points incha allah bi présidentielle yi dinañ am ni mu war a amee date bi mu war a am sénégalais yi am fayda voter sénégalais yi c'est l'occasion de reprendre nos pays de le poser dans les bonnes gis ngeen njiit mooy lépp vingt candidats yi gis ngeen leen ñun suñu xalaat euh, ñu ko fi répété fii si liggéey nañ liggéey boo xam ne nii hmm, euh, ñu koy wax benn grille boo xam ne nii dañ ciy profité pour aussi communiquer si ay critères lañ tey yu leen nañ critères yooyu benn njiit bu ne képp ku bëgg a voté na nga jël critères yooyu jëfandikoo ko A ba Z nga xool candidat bu ne lu mu mérité ndax kii jar na voté wala jërul voté mais bu ngeen Séné bu ñun sénégalais bu ñàkkee fulla encore une fois ba ñu indi ay njuuj njaaj ba def leen neex ba keneen nekk si bopp réew mi ku warul nekk euh, wala ñun voté wu ni ñu war a voté avec responsabilité de façon citoyen tànn fi beneen njiit boo xam ne cinq mooy ñëw di fi def lu ko neex bon ëllëg ñun suñ bopp dong lañ koy def. réew yi àdduna bi yëpp ñu si bëri tey ñi ngi développé ndax dañu am njiit yu baax ñuy liggéey liggéey bu set am yërmande si ñi leen ñin jiite respecté leen jox leen cër. mais mënoo jiite ay nit bu dee yow xamoo fi nekk faalewoo seen maam yëgoo leen lu la neex nga def leen. loolu nag Sénégalais yëpp yeewu encore une fois te teg seen bakkan te xam ne président de la république du lu ndaw te ñun fii ñu jaar fii war nañu ko wan. ndax Sénégal mi nga xam ne nii képp kuy wax tey encore une fois yàlla tax ngay wax dëgg ngay wax tax ngay wax Sénégal mu nekkoon démocratie nekkoon réewu républicain bu ñëpp respecté di ko sénégalais boo ko tuddale nga am fierté ñu dem ba sénégalais yi nga xam ne réew yi yeneen yi sax dañuy xas wala dañuy reetaan nax lii nga xam ne moom la ñuy dund ak Macky Sall ñu ànd ak Macky Sall nag man encore une fois taxul may wax bu leen neexee ñu ne nit ñi dañuy wax waxu dof wala ñuy wax du waaye képp kuy sénégalais républicain gis li xew si réew mi yëpp digg bëccëg ndare kàmb ñu dem bàyyi sénégalais encore man du ma ko fàtte Sénégal bu ko fàtte affaire la mais man du ko fàtte du ko baale ñu dem ba sénégalais ak yu ñu xam wala ay sénégalais jël fetal digg bëccëg di dóor si yeneen sénégalais ñuy tëdd daanu di dee ba ay ay moor ñu dem ba tey sénégalais yoo xam ne dañoo yor seeni njaboot depuis ay weer ñu xañ leen ñu gis seen i doom wala ñu gis seen i wajur ay lu ñàkk fayda ja Bassirou Diomaye Faye la mu wax colonisation de la justice ñu tëj ko fi boobu léegi keneen ak keneen tey doomu sénégalais di leen tëj kaso mel nit dem ba lépp lu ñaaw lu doon gis yeneen réew yi ñu koy dund si biir Sénégal te bu ñu waxee nag nit ñi nag ñi koy kaas ñu ne ñii dañoo bari histoire wala ñoom ñoo ñoom sénégalais li gars yi wax de sénégalais xamul encore une fois ku tooñ ku fayu lañ xam mais heureusement que ñi waroon a fayu ba léegi euh, esprit républicain la ñuy def ak xel mais na sénégalais yi encore une fois xam ne élection présidentielle wala tànn jabar sax boo koy def danga nga xool wala jëkkër da nga tànn ku baax xamul nag président de la république boo xam ne ni ëllëg moom mooy yore ay décret di def lu ko neex nañu am jom am fulla suñu réew mi ñu jël ko teg ko si loxo sénégalais yu am jom jub te yërëm sénégalais te respecté surtout sénégalais suñu institution ñoo xam ne ëllëg parti bi du leen gënal ñëpp du dem ba def parti bi changé sax ba changé changé couleur état république Sénégal sax nga gis bu Macky Sall di wax nga gis ñu def si ginnaaw couleur yoo xam ne ni du couleuru Sénégal changé couleur APR def ko si ak leneen ak leneen na sénégalais yi encore une fois am fulla am fayda ba nga xam ne nii euh, euh, ëllëg. que ñi tànn dana doon ku xam institution respecte liberté de la presse respecte séparation des pouvoirs ñu jël suñu institution yi ñi nga xam dañ fee nekk ndax affaire poste tax luñ war a àtte pour yoon ñuy àtte leen neex pour que leen fa fal loolu mu dañ fa damay wax encore une fois ne États-Unis ba Donald Trump ñëwee di def lu ko neex nekk bëgg pour toog si nguur gi institution yi ñoo ñëw ne ko lii du fi am institution moom digg la warul njaaxanaay lay tëddee. mais mënuñoo am réew moo xam ne ni dañoo bëgg mu dox démocratie mënut a dox bu dee yow institution yi ña fa nekk ka leen fa fal moom moom lañ fay toogal moom lañ ko fay toogal di ko def lu mu bëgg def. bu dul yoon ñu koy def ñëpp xam ne lii du yoon mu koy def lu leen neexee ñàkk si jom xooluñ si sénégalais yi xooluñ si àqu àq seen i doom xoolu seen njaboot faalewuñ kenn lu Macky Sall bëgg lañu def. gis nañ fi général Moussa Fall di décorer euh, euh, président DGE xaw ma waa ji Thiendella Fall gendarmerie. moom ma ma am na xanaa kay loolu kay mooy Macky na ko décorer directement rek ndax liggéey bi mu def ba nga xam ne nii fu délégué kii Ousmane Sonko yónnee ñëwee Moussa Daffé ñëw pour jël ay ay parana mu bañ donc bu ñuy remercier wala bu ñu décorer kay nañ ko def ko Macky Sall def directement rek moo gën ñu ko jàll si Ismaïla Madior Fall même bu ñuy six ak neuf mais bref wax ji daal li si am solo mooy njiit ak ku mu doon si àdduna du tous sans la le peuple peuple sénégalais bi am na ñoo xam ne boobu léegi kenn dégguloon ñu prononcé ñi ngi seetaan li xew Sénégal mais lii ñu teg Sénégal Sénégal encore une fois nekkoon une vitrine démocratique nekk réew moo xam ne nii ñëpp naw ñu tout le monde nous respecté si na sénégalais bu ne am fulla jëli sa carte électeur bu vote jotee nga vote te booy vote nga tànn tànn koo xam ne nii encore une fois da nga respecté Sénégal adduna tukki ba lii fi xew Sénégal di fi amati. te lu mu yàgg-yàgg ñii lii fi xew Sénégal aussi man dama koy répété ah ku baale nga baale mais ñi fi ñàkk seen bakkan ñi si loru du ñu jeex image Sénégal bi ñu yàq du jeex donc ëllëg képp ku fi ñëw falu da nga am fulla wut commission d'enquête bu jub du venger wu ni rien mu éclairer li fi xew léew lépp képp ku si amoon sa responsable nga rendre compte noonu lay doxee ba nga xam ne ni ëllëg képp ku fi ñëwati boo naree def sa yëfu dof yi ñu xam ne yow doo boo ko defee ëllëg da nga rendre ay compte français yi nii ku munta doon ministre day dem kaso ku def lu dul yoon dana nga la rendre ay compte ëllëg ñoo nekk nag Afrique réewum président ñëw bu faloo ànd ak ay nitam def lu ko neex toroxal nit ñi tëj nit ñi salfaaña démocratie bi ah def lu ko neex su paree dem jël retraite dem jaaxaanir France wala réew mu ko neex dara du ko si fekk donc encore une fois pour bañ euh, video bi gudd na Sénégalais yi encore une fois euh, tànn tànn nag euh, liggéey boo mënut a seeri si àdduna day am fiche de post ñu xool ko war a def yow boo doon def say sa benn concours wala dem offre d'emploi dañu xool yow sa CV xam na yow lii mën ko def wala mënu ko def sénégalais yi nag jël leen critère bii ma leen di wax du question euh, publicité euh, mais liggéey la boo xam ne nii dana tax ba sénégalais bu ne mën nga tànn njiit mais basé wu am foo ko teg te am na njiit ñii ma gis vingt candidats yi am na candidat yoo xam ne wóor na rasulillahi boo jëlee critères yii ñu ñu ñu liggéey teg ko nga xool A ba rien que respect de la parole donnée xool seen trajectoire politique xool seen jaar-jaar bañ nekk bañ bañu politique ba léegi wóor na yàlla jaaykatu table lu ma sax waruñu koo doon waxuma laa nag di nekk ne dañuy ñëw pour nekk président de la république ndax seen jikko may waru leen wanuñ jikko bu tax ñu war a ëllëg prétendre jiite Sénégal amuñ amuñ amuñ passé boo xam ne ni jub nañ jub goo xam ne war nañ ñëw jiite Sénégal délégué de quartier sax mérité wuñ ko te tey def seeni pexe ba nekk naan parrainage parrainage bi sax moom la ñu war a dindi parce que parrainage bi c' est pas quelque chose de très objectif pour tànn njiit wala def tànn ku ñuy wax président de la république. donc encore une fois euh, ki ñu kuy fal njiit xamal la njiit bi tey décision yi muy jël dala dana impacter sa dund dana impacter ba impacter say sët donc nañu am fulla tànn président de la république boo xam ne nii encore une fois. Euh, ba muy politique ba léegi jub lañ ko xamee ba muy politique ba léegi euh, respecté na Sénégalais yi am na yërmande Sénégalais yi nan ngay falee koo xam ne ni yow yow yow yow amu am nga jaar joor yoo xam ne ba nga juddoo ba léegi sax sonnoo ah ay njuuñ njaaj rek ngay def di di di di am xaaj bu du jeex lépp di vivre sur le dos des Sénégalais kooku boo ko falee ëllëg bu ñëwee day xam yow sa problème ba lay dimbale balay ba lay respecté ba lay yërëm da ngay fal koo xam na nii jaar-jaaram parcours am de A à Z nekk na koo xam ne ni ëllëg doy na pour jiite Sénégal bu ñàkkee fulla nag ba naxañu fii ba jëlaat ba def leen neex ba continuer seen i njuuj njaat nag nga xam ne ëllëg bu fi benn sénégalais ñëw di jooy su match de football amee bala bu concert amee sénégalais lu ñu doon def bako dem am fula seetaani loolu te bu ñëwee nag pour tànn njiit mu doon lu am solo eh, sénégalais yi di ko di ko na am ñoo xam dañ koy foyewa di ko caaxaane nañ am fulla te xam ne président bi Macky Sall yéen ñëpp gis ngeen ko fi muy ànd ak Moustapha Cissé campagne électorale di yor oto boo xam ne ni amul sax eh, eh, essence bu ñëpp di ko seetaan kenn fàttewul loolu ah tey nag ñu dem ba jox ko pouvoir boo xam ne ni mu ñëwaat di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu marché sur le sur le dessus amul benn respect su ñun politicien du tous bu mu munta doon ak kàttan boo munta am peuple bi muy man muy yow muy Masamba ma deme ñoo ko jox donc nañu am fulla tànn tànn ko baax ma répété ko jabar sax boo koy xool wala jëkkër sax boo koy xool da nga xool ay jikkoom imaam da nga xool ay jikkoom bu ñëwee nag du daf daf fii di jël président de la république boo xam ne ni yow euh, woysaayu làmmiñ wi neex na ah woysaayu am na oto yu bëri te ñu si bëri seen xaaj bi ñu si bëri fu ñu ko jëlee am na ñoo xam ne lu politique lañ leen xamee ba léegi amul benn mérite. donc encore une fois la on a l'occasion une occasion en or de prendre les choses en main bu nu sàgganee ba jëluñ suñu réew mi teg suñu jub Sénégal dafa nekkoon réew moo xam ne ñëpp bokkoon nday bokk baay ah amul joolaa bi amul séeréer bi amul pël bi amul ma sàmba amul ma demba ñëpp ndeysaan bëggante. mais dem nañ ba diviser Sénégal Sénégal dafa diviser wu ku la waxul loolu day day kàcc waxul dëgg nañ dem nit boo xam ne ni ndeysaan rien que son image rek day unifier le Sénégal Sénégal nekk réew mi ni ñi nit ñi ñu respecté woon fépp si àdduna ñu respecté wuñu mais ñu ko defut bala ñoo demaat bay jotaat gis nga nii pante bi ñu jël nii woo na alxuraanu karim man de sama gis-gis farul ma sàmm farul ma demba mais pante bi réew mu mu si mu si dugg musiba doon dem ba Sénégal nit ñi jënd ay dem ba Sénégal ay manifestation sax ñu bal rek la leen di door loolu nit nañ ko fàtte man fàttewuma du ma fàtte du ma baale parce que lu ñaaw kenn waru ko baale noonu donc bañ affaire bi gudd rek parce que semaine la nekk ñii ngi wàcc liggéey suba gi ñii di liggéey euh, nañ am fulla nañ am fulla xam ne uude nu mu la gisee noonu lay ëwalee uude boo demee dafa defar say daal boo amee fayda baraaye bi set wecc normal correct mu defal la daal defar bu baax boo ñàkkee fulla mu defal la daal yi nam la gisee si yow ñun ñoo war a def lu ñu suñuy njiit ëllëg di respecté mais buñ ko defut buñ fi ñëw di jooy su suñ mbokk rakk yi nga xam ne nii dañuy ñëw wala suñ mag yi di jël gaal yi di si dee di torox amuñ liggéey ku ci liggéey ba jàng ba pare ñaata nit nga xam ñu jàng pare Sénégal mënuñu am sax liggéey bu ñëwee di fen lu di fen di wax wax ju amut bopp amut gen ah njiit day am yërmaane si nit respecté nitam ah te li ma gën a metti senegal mooy ñu bëri tey ñoo ngi mbubbi woo diine di mbubbi woo leneen réew mi nit ñi ne am sénégala yoo xam ne ñi ngi nekk si tuux dina yoo xam ne ndax politique te kenn du jël sa kàddu sax ñëw wax dëgg loolu nag beneen débat la mais daal ma bañ a guddal rek si gàttal élection présidentielle du fo donc nañ xool candidat bu ne ke ku ne bala ngay voteel nit bu ko xool nax sama najaay la ak sama bàjjan la ak parti bi laa bokk xalaatal kii jaar-jaaram jaar-jaar mooy lépp waaw jaar-jaar dafa am solo si nit waaye bu ñu fi ñëwee jël fi koo xam ne làmmiñ wul neex wala ñu xoolaan fii ba ñu sàccaat suñu élection wala ñu def fi leneen bu fi kenn ñëw di jooy donc encore une fois ma bañ a guddal c'est une occasion en or 25 février ñi nga xam ne nag seeni intérêt moo tax ñu ñëw di wax waxu carte naan yokk pousse élection def ma Samba ak ma Demba conseil constitutionnel benn loi benn yoon rek benn cas moo tax mu ne nañ ñu pousse élection mooy bu dee benn candidat bu si ñàkk bakkanam kenn ñaanu ko yàlla. bu moyee loolu amut benn kaa bu war a mën a war a dañuy toxal élection élection yi ba Sénégal amee ba léegi président bu fi ñëw da nga organiser élection yu set wecc ah la moindre de sos sénégalais yi tànn ka leen neex léegi nag dem nañ ba sénégalais sax mu mënuñ tànn ku leen neex ndax ku xam ne ne Ousmane Sonko ñi ko bëggoon bëggoon a voté moom duñ jeex mais def nañ seen i tappale dès le début nag loolu lañ bëggoon nëbbuñ si woon dara xooluñ si na ñaaw na wala ba sax ku leen si xas nañ ko bëggee woon lañ ko defee malgré le combat de républicain de plusieurs sénégalais ñii di bind ñii di dénoncer ñii di manifester mais terewut maki Sall areerut dellut ginnaaw lu màtt mu damm xam gaa yi naan li sama yaay ju sa àllaaxira ak ñeneen ñeneen doon wax naan boo doon dëmm koo màtt mu dee Macky Sall lu mu bëgg da koy def na mu ko bëggee woon noonu la ko defee may wax rek et de une et de deux une troisième fois lam bëggoon ah daanaka am nañ ko ndax Ousmane Sonko narul bokk loolu bëggoon dès le début euh, man nag vraiment euh, rend hommage à tous les républicains tous les sénégalais yoo xam ne nii defuñ ko ndax dañoo nekk bii parti wala neen avant tout dañ koo def ne du yoon Sénégal ba Sénégal amee ba léegi mënuñoo nangu benn nit duñ jaamu kenn ba kenn naan kii mooy bokk wala du bokk loolu nag la Macky Sall bëggoon ak ay quelques nitam def nañ ko euh, mais c'est pas dans les avec les honneurs parce que booy gagné la fin ne justifie pas les moyens lépp looy am si àdduna na nga am si droiture si si si si si si honneur mais bu dee da am dara. te amoo ko si honneur it loolu moom ku am jom ku ne doo ko sax bëgg donc di leen jaajëfal di leen wax la combat ne doit faire que commencer présidentielle yaa ngi ñëw se locasion jël suñu réew teg si loxo yi sedd wecc njiit boo xam ne danañu dana danañu yërëm dana dana am esprit républicain dana respecter institution yi dana am vision du am complexe intérêt Sénégal avant tout ku jub ku jub ku jub am yërmande respecter sénégalais yi. buñ fexe nag bu defuñ loolu ëllëg bu fi kenn du nekk di jooy di jàmbat ceeb bu seer beek xale yi amuñ liggéey immigration beeg boobaa on assume chacun assume xam naa ne diaspora bi moom xam naa si ñoo xam ne coono bi ñuy daj ndax Sénégal te am seen lépp fii mënoon dund seen dund bu neex am jàmm boobaa ñoom xam naa dañ téye seen bopp euh, dund seen dund tey porté seen njaboot parce que xam ne euh, ndimbal na si fekk loxoy borom di leen jaajëfal bu baax euh, di leen ñaan aussi ngeen partagé rek. pour permettre yeneen sénégalais yi ñu mën a gën a sensibiliser xam naa nag Sénégal moom ba sa collège ba ba sa lycée ba ñëpp ay jeunes yoo xam ne nii ni dañuy xool actualité yeewu di intéressé wu donc nañ continuer di nekk nit ñu yeewu ndax lu mu munti demee am na réew yu bëri yu tane te loolu lu ñu ko may mooy suñu ngóor kenn mayuñu ko donc na combat bi continuer bu leen fi kenn di gëm loo naan Massamba mooy gagné premier tour ak ay sàcc la ay kàcc la gis nañ fi élection législative yi fi weesu résultat yi fi am sénégalais yi gis nañ fi ñu voté ni ñu voté donc na sénégalais yëpp encore une fois jóg am fulla xeex lii nga xam ne moo fi nekk ak dans les urnes du yoon te sénégalais yi républicains yëpp di ko bañ te bañuñ ko nax intérêt dañ koo bañ nax nekk bëgg seen réew muy réew moo xam ne nii nit ñi nañ meloon sénégalais bi joolaa beeg séeréer beeg pël bi ñëpp bokk ndeg baay amul division mais dem nañ ba Sénégal kuy wax te yàlla xam wax xam ne lii fi xew musul am Sénégal te képp ku ne woon dana mos am Sénégal doo ko gëm jërë ngeen jëf di jégalu nag si wax bu bara bi moom joo loolu moom du dañ saa <laughs> ngeen jëf yàlla fi jàmm sax jëli leen seen carte voté ak fulla ak fayda tànn tànn bu baax nit ku wóor nit ku jub nit ku am yërmande sénégalais yi respecté sénégalais yi koo xam ne senegale nañ bokk am bokkee woon nday noonu lay kondi du fi ñëw di def acte yoo xam ne day diviser nit ñi di indi musiba senegal ndax jàmm si la lépp xaj bu amoon tout l'or monde amoo jàmm amoo dara te réew bu xasee ba dugg si yenn tuuxu diina yi balam see génn billahi wallahi taala yi kenn xamul kañ la si génn donc na Sénégal ay am jom te xam ne euh, encore une fois ñu répété ko politicien ku mu doon du tous sans le peuple ñoo yore suñu carte électeur ñoo joxe pouvoir bi ñoo ko war di génne mais bu ñu dof dofloona ba jox ko koo xam ne ni ëllëg euh, jëlaay saar ko mbaa marché daanoo koor def ko muy dara si moom it boobaa buñ ko réccu ndax ñoo ko defal suñu bopp jërë ngeen jëf